la ba amee événement yi dañuy sonn kenn du génn fii suñu yaay yi dañuy génn suñu papa yi kenn du fi génn dañuy sonn lu kaas na nga ba sonn nag amuñu nag ku ñu jàppale xanaa ñu gis seet kàcc bi dem wax mu monsieur le maire wax mu ne am solution daal mu wax ak gars yi waxee ak gars yi am pexe bu ñu ñëwee bu ñuy baara ñu baara si ko tribunal yi fële nañu jàmm moo gën ñun xeexuñu xeexaanuñu ñu di politique ñun soo baay di politique sama yaay sama yaay di politique xamuñu dara ñun lekkuñu ñu fii dëkk ruku ruku dëkk nii ay ay policiers ñoo nañu fenn dañu sonn lii defaral rek kenn defaruñu dara dañ sonn nag ñu ñaan yàlla nag ñaan yàlla yàlla ba état mooy mu mun dimbali ngir yàlla dañuy sonn si lii. gis ko wala fii lañ fanaan. non ñoom fii lañ fanaan ñoom 22h 23h ñëw baare war na yàlla 23 heures 23 heures ñëw nañu baare sonna waa koñ bi kenn dem fenn war na yàlla. parti bi ki mooy quatre plateau waa plateau ñun lañ sonn trop trop sonn trop. dégg yaay booy xam naa moom nii nguur boo jotee moom dañu dimbali. génn bi sonn nañu bu ñu xamee ne fii la ñuy dëkk rek amul benn problème dañuy bàyyi ñu dugg waa amul problème moom wax dëgg yàlla. waa il faut mu tiital la parce que tamit boo gisee tamit ay am de toog yi taxaw da ngay tiit da ngay tiit da ngay yor ay njaboot te xam nga ne fii quartier populaire la il faut nga tiit moom loolu moom mënoo si dara moom il faut nga tiit waaw. waaw di nga dugg yow mi dëkk si koñ bi sax saay di nga dugg dañ lay xaw a téye parce que du ñu mën a ràññi la ñëpp ñëpp dañoo bari mënuñu xam kii fii la dëkk kii dëkku fi ñoom dëkkuñu fi dañoo ñëw rek pour pour escorter fii koñ bi. kon ñu xam ku ku dëkk fii ak ku dëkkul fii xanaa boo dëkkee fii ba wane ne dëkk naa fii ñu xool la xam ne yow dëgg la dëkk nga fi ñu bàyyi la nga dugg wante amul benn problème. ah mënoo aussi dara na xam nga affaire gouvernement la rek ñoom ñooy dogal ñooy bàyyi rek lu leen neex rek la ñuy def xam nga. ñu population dañuy mën a topp seen ginnaaw rek bu ñu nee jaar leen fii ñu jaar fii bu ñu nee dugg leen fii ñu dugg fi am benn problème ndax suñ noo tam buñ tey buñ taxawee si koñ bi tamit waa koñ bi lañuy ñuy aar waaw lii pour ñun la parce que ñun lañuy ñuy sàmm te ñun lañuy ñuy aar même bu ñuy ñëw te dëkk ñu dëkk fii xàmmeewuñu dinañ jéem a maslaa ba dugg ba ñu bàyyi ñu ñu dugg wante am benn problème wax dëgg yàlla dëgg am benn problème. ñëw ba fii ah, yor sa ñu doo dugg sama gars mi léegi la dugg yor carte ñu ne ko dama sol tubéy bu gudd mu ñëw ma aal ko mu ñëwaat ñu ne du dugg lu dox lool lool. loolu fa la ko yi teg kiroot la sol mu ñëw ma ar ko tubéy bu gudd lém waaw dama sol lu lu nga sol daa gaat dama changé tubéy lém ci biir doon dem doon dugg ci biir moom koy am na kaadaan am na lépp ñu amee kaadaan bu ñu ñëwee pour dugg dañuy naan doo leen dugg lu tax loolu waaw ñun ñu fii ñun parcelle lañ dëkk waaw paasal lañ dëkk. gaari ñu war a jàppale ñu lay tuut tàng bu ñëwee amuñ gaari ñu war a jàppale waaye ñëw fi ñu naan ay doo leen dugg loolu du yoon. waaw dañoo ñëwoon non raba du lool sax ñeneen waaw audience bi waaw ñëwoon fii ne gars ñu naan doo leen dugg nag leen kaaraan ñu lay tuut tàng lañ yoruñ kaaraan de gars dañoo waroon jàppale ñoo fi ñii am am nañ kaaraan ñu ñëw ñu leen doo leen duggaat. loolu lu yoon gaa yi nga war a teg si yoon. waaye du heure bi heure boobu nee na ngoon la kay ñun nañu may ñu dugg heure boobu jotee ñu jar nañ ñun ñu génnee ñu ñu dem waaye du heure bii loolu du yoon teguñu ko si yoon affaire dañ koy teg si yoon. Euh, bon bon comme comme tout le monde comme nous sommes tous des sénégalais bon am na yoo xamante ne que ne waxoon naa ko te dinaa ko waxaat. mooy que ne man yaakaar naa ne dëkk bi fi ñu toll nii waroon nañu dépasser stade bii 2022 21 bi ñu génn dafa metti 2022 bi ñu génn dafa metti bu ñu duggee ci 2023 dama yaakaaroon ne euh, dina gën a oyof quoi ci ñun parce que xam nañ ne dëkk bi actuellement koom-koom bi demeewul noonu dëkk bi dafa metti ba pare dëkk bi li ñuy def actualité du actualité Ousmane Sonko aji Sarr Ousmane Sonko Adji Sarr te ñu ne Ousmane Sonko Mame Mbaye am na yoo xamante ne que ni ñun doon doon wax ne Sénégal dëkk la boo xamante ne que ni presque ci Afrique ñoo fi rawoon mais léegi ñun dañoo dellu ginnaaw dëkk africain yëpp ak ñuy raw ba pare ñëpp dañu tàllal seen nopp ak seen i bët viser Sénégal ci lii ñu yàq li ñu li li fi am actuellement ni à l'heure actuelle te mënoon na ñàkk Séné ñu ngi koy fowee nag ma gelé wax naa ko suba ngoon sëriñ si jàngu bi délégué de quartier yi imaamu jàkk yi ku nekk am nga ci sa part de responsabilité boo xamante ne que ne dëkk bi nañ ko oo nañu oote jàkkaarloo ñëpp ñu toog autour d'une table ñu régler lii am ci dëkk bi ñu jël ko yóbbu ko fële te xam ne lii lépp seytaanee la te seytaane nag xajul fen fenn lay gis nag di yoot di yoot di yoot ba nga xamante ne bu ëllëgee ñu ne su ma yëgoon su ma yëgoon nag xamoon naa ko fàqatoon naa ko moo ko gën waaw man am naa loo xamante ne que ne euh, ci réew mi peut-être yàgg naa fi du xale ku atteindre 60 ans ci Sénégal am na lu bari loo xam ne fekkee nga ko am na lu bari xam nga ko bu ñu bëggee réew mi stable bu ñu bëggee réew mi neex ñu dem ci ay élections yoo xamante ne que ne transparent ku nekk bu ñëwee ne man candidat laa ñu bàyyi la nga dugal sa récépissé pour tout un chacun ku nekk am nga droit ne damaa bëgg nekk lii parce que sénégalais nga mais mënuñu neen ñii ñooy sénégalais ñi duñu sénégalais amu fi fii ku fi nekk sénégalais nga fii jullit moo fi am akay ay catholique te ñi ngi demalante ñi ngi dans de bons terme loolu feeñul fii fen fen fen fen xam nga ay affaire ethnie amul fii au Sénégal te ça n'existe pas te du fi mës a am parce que am nañ ñoo xamante ni ci jàngu bi ak ñoo xamante ni que ne tey jii Euh, euh, euh, ci ci tarixa yi ñi ngi fiy taxaw taxaw boo xamante ne que ne taxaw gu rafet lañ fiy taxaw taxaw noble lañ fiy taxaw bu dëkk bi naree jéng ñoom dinañ ñëw wax li nga xamante ne mooy li nga xamante ne mooy seen xam nag ça dépend ci ñun ñun su fekkee ay nit lañu dañuy woote ay nit lañu dañuy woote ne dañoo civilisé dañuy woote ne que ne ñun pays de teranga lañu dañuy woote ne démocratie la am na loo xamante ne que ne war nañ ko jommal suñu bopp waaw parce que léegi Sénégal daal nañ ko nañ nañ ko nañu nañu ñaanalante daal ñun ñëpp voilà